kër gi donc seen poste rek lañ fi nekkal dañuy kaas bu leen gars yi woowee jox leen xaalis suñu leen joxul ñu kaas wooy noppi. parce que aussi tamit depuis Abdoulaye Diagne ñi ngi def li ñuy def di continuer di ko def aussi question de ay seen poste lañ fi nekkal loolu waxu caaxaan la tamit quoi franchement. mais kër gi est am na ay xarit ñoo xamante ne ci gouvernement bi lañ nekk parce que tey dañuy xaritoo ak yow suba taxaw ne la carrément yow li nga def baaxul ci réew mi. ci gouvernement bi ko xam ne nii kër gi mën nañu wax ni kii sama xarit la Macky Sall sa xarit seen xarit la woon en 2000 en 2011. suñu nekk sama xarit xarit mooy koy demalanteel di àndalanteel dañ mooy léegi période électorale képp kuy xeex ci am réew xaritu ñëpp nga ñiy ut pouvoir bu jotee pouvoir oto yi ta oto bu paan bu demee ci mécanicien bi paan ko fa yóbbu buy tàkk ne ko wéy dem yoon dem na yoonam c'est ça le truc duñ suñu xarit on, on se respecte parce qu'on partage un espace. S'il y a un respect mutuel avec tout le monde. Alors, par, justement, à cause de ce respect mutuel, à cause de ce qu'on appelle euh, l'union, euh, respecter ce prochain, nous devons tenir des langages de vérité. Nous devons assumer aussi. Nous devons tenir des ngeen dafee jógu fi bi sound bi génnee ba pare donc dégg nañ ne woo nañ leen fii entendre leen ak yooyu comment ça s'est passé quoi. non. jógu fi bi mu génnee. non saay saay saay saay. saay saay pardon non non non kenn entendre kenn woowuñu fenn kenn entendre ñu fenn et je pense que c'est normal parce que waxuñu lu lu nit mën a dindi waxuñu loo xam c'est-à-dire dama bëgg nga ne ma yow ci la base de quoi la ñuy entendre. sénégale yi wax. non ay rumeur la yoo xam ne liir nañ ko ci réseaux sociaux yi. yow yaa ko wax foofu laay waxee dama ne sénégalais bi wax ne dañ ñu war a jàpp dañ ñu war a entendre sur la base de quoi sur quel aspect ah waa ji lu mu waxoon cinq def ñaata at lay def sept loolu du dëkk dëgg léegi wax dëgg dañu ciy jàpp doomu aadama xanaa ci Sénégal la xew nga wax dëgg dañ lay jàpp. mooy kii def xaw ma crime de lèse majesté la xaw ma haute trahison mooy ki diggee defewul kooku la war a jàpp. dañ ko war a jàpp kooku la ñu war a jàpp donc ñiy wax dëgg ñu ne lañ jàpp il faut arrêter. comme il a toujours su faire aussi. on avait lancé la campagne par elle il y a trois mois de cela dinañ ko clôturer dinañ ko boucler la campagne par elle c'est sensibiliser les Sénégalais pour que ñu dem jëli ji seeni carte électeur parce que la carte électeur elle est très très très très très très importante parce que moo lay permettre nga mën a exprimer wu moo lay permettre nga mun a wax je suis d'accord ou je suis pas d'accord euh, sans pour autant nga xeex nga wàcc maanaam dóoranteeg affaire yooyu quoi alors ñu gis ni comme c'est un pays démocratique on a toujours sanctionné un président euh, avec une carte électeur voilà ñu nekk ci sensibilisation boobu Parce que aussi, tout en constatant, euh, constatant qu'il y a un réel problème, euh, Sénégalais yi euh, la majorité jotuñu seen carte ñuy tamit au même moment où ñuy sensibiliser les Sénégalais pour ñu def opération foqati sama carte ñuy sensibiliser les voleurs aussi yi nga xamante ni c'est eux qui ont confisqué les cartes d'électeurs des Sénégalais pour ñu rendre leen ko ñu mën a exprimer wu et tout le monde sait qui sont ces voleurs voilà euh, Y'en a marre loolu la ne on prépare l'anniversaire du mouvement c'est le 18 janvier ci le mouvement bi di am huit ans euh, on a traversé toute tentative de diabolisation toute tentative de désinformation de manipulation de tout de calomnie de tout mais malgré tout le bon Dieu fait qu'on toujours là debout euh, même buy nekk benn nit kese alors Y en a marre est aujourd'hui dix mille fois plus fort que 2011 et li ci kanam raw yi bët. ok ñu gis aussi tamit single bi clip bi mu génnee donc euh, y même pas une semaine mu am benn un million de vues donc euh, ah ëpp na ko actuellement nii la atteindre benn un million de vues kon ce qui veut dire que neex na Sénégalais à côté le discours le discours euh, à côté il faut il faut dire à côté le discours à la nation le faux bilan que Macky Sall voulait faire. passer et comprendre aux Sénégalais am di peine à avoir 300 000 300 vues ce qui veut dire que sénégalais yi dégluwuñ ko ci yëfu caaxaanam yooyu muy les sénégalais ki ñu bëgg déglu mooy ki leen di wax le vrai bilan non le vrai bilan. waaw mais nag kër gi bul fàtte ne kër gi c'est kër gi boo defee analyse boobu man daf may xaw jaaxal parce que kër gi même bu dul Macky Sall wala bu dul saay-saay wala jógu fi suñu defee nit ñi dañ koy seetaan parce que fi mu tollu actuellement nii waaw pour man. ba ba pare mooy comme j'ai l'habitude de dire euh, euh, musique euh, euh, saay-saay au cœur c'est de la très bonne musique côté écriture côté arrangement côté euh, flow beat bi et tout c'est c'est une très bonne musique. Euh, neex na fooyantoo ko neex na fooyantoo. lu <laughs> la quoi au delà de tout ça de tout ça dafa neex l'utile à l'agréable la. waaw ngeen ko pare ah macha allah xam naa bi ngeen koy bi ngeen koy bi ngeen koy enregistré maa ngi gis benn kii bu ndaw boo xam ne dugal dugal ci YouTube bi xam nga mais bi ngeen koy dugal gajaga lan lan la def saa yi lii bu ngeen ci génnee ñu jàpp ñu wala nan la nan la gajaga en tant que ménager réagiré. ci préparation gajaga gajaga buñ ko suñ ko toppoon waxatuñ ko. du génn wala day gën a tàng. ñun ñi di waxan ñooy ànd mais moom moo ñu gën a sës. Gadiaga ak Sofia ñoo ñu gën a sës. mais grand bi dafa sedd gars yi dañ naan dafa sedd dafa kuul wala lu mu nekkul di rab la rek. <laughs> jegewu ko sax. <laughs> ok dafa am benn affaire bu am importance boo xam ne nii donc mooy El Hadji Sidi Lamine mi nga xamante ne nii moom. ku wax Sénégal wax élection tudd ko ci donc nga xam ne donc di leen ko jaale ay mbokk suñu mbokk Kaolack waale yëpp di suñu sëriñ di suñu lépp tey jógeem bi c'est-à-dire naka ngeen ko jàngante ak yéen relation ngeen amoon ak Sidi Lamine. waaw am nañ ci naqar waaye am nañ ci it ngërëm ak sant ak dal parce que yàlla moo namm li mu namm waaye Sénégal dina ko jooy de. <laughs> saay-saay oo cœur benn tele ko fi teg Sénégal muy Walf ñoom kese ñoo ko fi teg te leer ma bu fi sii di nekkoon 24 heures sur 24 moom lay bomb kon réew mi amel na ko njukkal ci engagement am tey nag lañ fi nit ñi di nekk di ko wax même moment bi mu nekkee ci àddunaam di dundu rapport bi ñu am ak moom mooy ay taalibe ak sëriñ ay jarbaat ak nijaay taalibe doom ak papa mu bokk ak dara Fadel mi nga xamante ne ñoo nekk ci Y'en a am na luñ am na fu wàll wu ñu bokkee ñu bokk aussi suñu Saalum ñun ñi particulièrement nekk aussi une référence ci bañkat au Sénégal. donc ça di jóge bi mu fi jógee xam naa dina leen manqué ne Sénégalais yëpp Sénégalais yëpp la manqué ah du kër gi rek wala genre mais boo gisee ma ne kër gi parce que da ngeen a bokk engagement da ngeen bokk benn philosophie benn concept mooy askan bi rek moo ñuy teel askan bi rek moo ñu ñoreel. donc loolu ak li nga xamante ne bàyyi na ko fi est-ce que pare ngeen pour porter combat boobu gën ko taxawaat mu mel ni comme si que kër gee ngi fi sii Sidi Sidi Sidi Sidi ngi fi mosu fa jógee. oui def combat wu kenn nag parce que mënuñu def combat wu Sidi on peut pas avoir cette prétention Sidi était Sidi da doon xeex avec ses moyens xeex avec li mu mën ci fa mu mënee ci wàll ba mu nekkee ci côté diine ci côté matériellement mu ëpp ñu ko it def di ko ci def utiliser son média mu nekk un médium pour le peuple. mais ñun wàll wi ñu féetee ñu ngi koy def te ni ñu koy defee gëm nañ ne yaakaar nañ ne ñu ngi koy defee ci ni mu gënee donc li tax ñu mu ko rek li tax ñu naan Sénégal dina ko jooy mooy ne xëy na bu fi nekkoon période bii nii débat yi dana gën a coq diine ak jamono dana gën a saf que rappelez-vous que beaucoup des de yi nga xamante ne nii fa la doon dem di wax démb tey ñu waxee foofu la ñu jaar donc bu fi nekkoon tey xam naa ne ba ci opposition bii di wut. ñu bëri dina leen ci duut ay baaraam ba bu ëllëgee ñu xam ñoom na la ñuy jëlee donc ci loolu namm nañ ko ci. ok macha allah.